horyoɓer bromen tek fa fay fay jojo fay biram ko refo acca mbañik acca o muñi fay muñi muñi muñi muñi fay romen 好